بسم الله ينبلها yow mi yor sa sànce bëgg karole sa kër ba muy nes na si gaawal gaaw seet si waa Taïf Karo ñu ngi fii jàkkaarloog hôpital CTO nee naa la ay karo ya nga xamante ne bii du os du furi da ngay fomp muy gën a rafet fii dong la ci Taïf Karo ji bi Bamba mooy gérant bi karo yu baax yépp fii la ñu joxante rendez-vous ci suñu biir place bi nga mën fi fekk karo italien espagnol wala indien yu ci mel ni ay grès poli 60 60 wala poli 1 mètre 20 nga xamante ne bii pour salon la salle wala couloir Aïkaro ay décoration pâte de verre yu amul fenn ay faïence pour cuisine wala toilette lepp lo soxla ci walu baguette amna fi fii yow mi soxla ay carreaux parquet gawal gaaw ñëw ci Taïf Carreaux andil len ay sièges anglaise yu bes tax ya nga xamantene bi ay nouveau modèle la waxna la lepp lu jëm ci walu sanitaire Taïf Carreaux mo ci mën ay carreaux grès salam grès émail wala grès poli 60 60 ay pâte de verre ba ci ay plinthe ay marche escalier wala contre mars, ay espagnol 60 60 60 40 40 wala 50 50 nga mën fi fekk Jibi Bamba mii nga xamante ne bii spécialiste la ci wàllu jaay karo mbokk yi nee naa la roy du nuroog pire te ki mën ak kiy jéem bokkul jëlal suñu numéro téléphone jokkool ak Jibi Bamba ci 77 745 76 88 ak Taïf Karo seen jafe-jafe ci wàllu karo jeex na tàkk. seex bi Modou Lo daanee ngaa nekk fi naan di coobare ma leen def leen ndànk bu ngeen amul sens Modou Lo combat bi mooy dernier combat am de. waxoon nga loolu kay. waxoon naa ko sama wax jooju nañ ci bàyyi xel Modou Lo boo moytu takkaloo ko waat ci ngemb ci làmb man dootul amati de. Ah. am naa ci yaakaar bu baax sax. mais li mu dem màkk def kii. moo tax xam nga. nit ki tay loko ban bak nangul ko jàmbaaram hmm. Modou jambar la lim wara def fep def nako ci sax xam nga ni Modou Lo seul mbeur bu ne ci lamb bo xamni ne na ay support ay supporteram si naka si naka xola parcel fi ko Modou Lo jele. ak fi mu ko yóbbu hmm. ben mbeur la ci parcel muy Modou Lo kese man nag sama wax neexu Papa Sow bi mu ci tolloon ay guddeem faat faas la demoon hmm. titre titre faas la bootoon yaa ngi dégg la ma la wax hmm. jos bi mu ci tollee ay guddoom d'accord mi ngi woon parcelle mais yaatalul woon ginnaawam ba mënoon a boot ay rakam li ma la xam nga ko hmm. xam nga moo tax ne naa la buggumay wax damaa xam lu bari man Matar Gueye lamb dara ump ma booba ci tarixu làmb ci tarixu làmb fi mu nekk muy xaadim gajaga ñoom Malick Matraze ñoom Talla Gaynde mhm. dañoo wàlliyaan wàlliyaan googu ñu wàlliyaan Pikine tey moo tax ñu dem tey làmb delloo leen jikkal ba indil leen tey Modou Xarañ Lo ñu ñu mhm. ñuy tudd unité parcelle yëpp cancer bok ci lamb far force lu koy tudd mm-hmm. mu le mu yag le sagal nak yag le a indi titre bu nek ba Cheikh lamb meuna dox lamb dem na ba Papa Sow mi nga xamni ci si la judo yaro fa demon demon boot titre titre face dem ba modlo juddo juddo parcel lamb dem ba bolé modlo ak Papa saw ñu wara dajé

moo tax man la Modou Lo desulul dara waa parcelle gàcce nga làmb kooku su bàyyee làmb xam nga lu ko waa parcelle day war a dese di ko tuddee stad di ko defal ay monument xarañ loo di ko tuddee tey maanaam comme naa nga naa ay unité six ak unité vingt mhm. Modou Lo mérito na ñu koy tuddal ay unité Modou Lo unité xarañ loo yooyu yëpp mérito na ko parce que loolu da loolu da koo defal parcelle moo tax man la mooy seul mbir moo xam ne si tey tey su bàyyee làmb gàcca ngalam ay supporteram toppatuñ ko dara. Mhm. mais nag bu ñu fàtte kenn waa parcelle mooy Khadim Gadiaga nañ ko nañ ko félicité dégg nga. Khadim Gadiaga. waaw. joué am tey ci Modou Lo gàcca ngalaama Khadim Gadiaga. mais tey Modou Lo bu fekkee dafa bàyyi làmb ak couronne lool loolu nuñ koy lijjante. seen loolu sax avantage u CNG la parce que xam lu tax dina mën mhm. a tax tey ñoom ñu toogaat xam ni ñu organiser roi des arènes bu amaat beneen beneen xar kanam bu bees amaat beneen roi des arènes bu bees boo xam ne si waa GNG ñoom ñoo ko jëlal seen mais organiser ko ci organisation xam si lu jaar yoon lay doon lu lu norme ta lamb nag foofu la toll ndax roi des arènes soo xoolee bi lamb suusa ba léegi nii benn méthode bi rek moo fi ne ci roi des arènes mhm. su boobaa CNG xam nga lu muy def. Mhm. roi des arènes boobu nax na saay ci loxo Modou Lo ñoom ñooy créé waat beneen roi des arènes bu bees ci beneen méthode yeneen facette yu bees làmb amaat beneen xar kanam. boolewaat gars yi seen biir. déggoo li ma la wax Matar wax ak yow te loolu lépp loolu lépp xam na ci lan lay jubloom luy defaraat làmb. luy defaraat. làmb. Mhm. mais Balla Gaye dem yow est-ce que Balla Gaye état de forme yu mu doon yor noonu est-ce que mën na ko indiwaat. Ah, mais bien sûr Balla Gaye sportif la xam nga tey xam nga làmb lu ci jafe bàyyi mm-hmm. sa début làmb moo jafe ci làmb début booy dugg ci làmb mais làmb soo démarré fi nga war a démarré ba bokk ci làmb ba nit ñi ràññee la la war a doon li war a def champion ëllëg xam nga lu tax lay doon sacrifice lay doon ak gëm-gëm mm-hmm. xam ne da ngaa war a doon tey roi des arènes Balla Gaye yooyu yëpp passé jaar na ci naqar xam na lu neex jaar na ci ay moment difficile uh-huh. xamali ma la kon tey bu làmb bu ko làmb toppaatee mu demaat tey ba ama benn chance boo xam si tey war na ko dugalaat ci làmb loolu gëm gëm ni Balla dina ko perte gëm ma loolu parce que bul fàttali nag INICEF dam fa caaxaan dugalul fa ay millions ngay fay. waay. yaa ngi dégg li ma kon sportif bu jël responsabilité am jël millions yooyu war ko investir sa bopp yaakaar naa ne tey hmm. doo dem foofu ñëwaat Sénégal ñu naa cam lan lan moo taxaw mu doon dem INICEF. daa feru caaxaan quoi loolu ku ni Balla Gaye warul mën a delluwaat fa mu nekkoon yow amoo benn esprit bi. Hmm. ak a palaasam. mais chaque jour damay dégg na ne Tapha Tine dafa def erreur quoi. waaw loolu dama ko wax à tout temps. lu tax mu def sama wax waaw sama wax nag su may wax xam nga làmb wax ci des fois day xaw a metti parce que su may wax du question yi damaa faral Balla Gaye yooyu déedéet man sport lay dund. ndax samay samay samay moromi ndaw la la ñu nekkoon ci mbër yi Tapha Tine moom bokk nañ bokk nañ ay adversaire xam nga loolu Balla Gaye bokk nañ adversaire yo xamni ñom ñoom dañ ci gënne victoire man mi waxe dama ci gënne victoire elas djouf biko biko ko di daan ba fekk na ma daan elas djouf ba pare Balla Gaye dafa daan dama daan tafat dama daan salum salum jox Balla Gaye Balla Gaye ah, daan de ko li wax bari salum salum

toll nii tey yow sa conscience bopp yow mbëri fi am roi des arènes yëpp est ce que Tapha Tine Tapha Tine mérité am roi des arènes. ok beneen bi ci des mooy boo indee boo indee tey palma palmarès su mbër mi ba pare yow da ngay tourné nga xool mbëri gox yi dëkk ku ci nekk gox gox bi nga dëkk boo nee Balla Gaye ni Guédiawaye nga ni Modou Lo ni parcelle waaw mais boo nee Tapha Tine nga ko yóbbu Bawal. parce que xam nga taarixu làmb ak cosaanu làmb tey li ci bawoo bawoo def kenn defu ko ci. mais bawol musul am roi des arènes. ngi ñëw te pourtant champion bu ne mhm. ce que bawol musoon na am nekk benn. ah seen écurie de bokkul moom. waa dégg li ma wax man la est-ce que bawal mosoon nañu ànd nekk benn. non non benn mbër ci benn mbër lañ ko mos a def ban ko defee ba léegi ni seen mbër laalul suuf ñu dem ba war a xëccoo titre roi des arènes bu ko tafaatin gañe tafaatin rek moom moom roi des arènes bi bawal yëpp ko dañ naa bawal léegi nag lu tax tey lu tax ñoom ñu dem ba toll foofu ci làmb tey tey damay wax dëgg rek te yàlla tax ndax Balla Gaye daan na tafaatin kenn wërante te ko mais làmb dem na ba tey lamb dox na dox dox dox dox ba tafaatin def nii bàlla hmm dañu wante deug ñu ni bàlla ñu ni tafaatin modlo modlo ni dama modlo ni damay jël pause mais bal bal lu ñu waroon def xaar tafaatin dañoo wu nek sa ginnaw manqué woo dara saison bi léegi mu jeex ta saison mu ngi ubbi waat demal nga tok nga ant ñu xaar mais lu tax tey ñu dem di jëli Balla Gaye mais tamit Modou Lo mi ne moom moom moom day jël pause est que tamit toog di ko xaar war na tamit. mais yow saison bi li des saison bari na. na ay weer des quatre mois cinq mois. waaw mi ngi noonu tabaati tey reposé wu tey xaar saison bu saison bu jeex beneen saison bu ubbi lan mooy inconvénient bi. lan mooy problème bi titre roi des arènes jarul lool. jar na ko. waaw nañu waxante dëgg nañu waxante dëgg léegi tey nga fekk gaynde gu blessé gaynde gu màggat gu demoon di rëbbi ba blessé xam ne dafa gaañu mu dem toog ci ruqam faju ba wér. gaynde googu bu la fa fekkee nga bu la fa fekkee yow sa xalaatu nga yaakaar ne gaynde gi mun laa faagaagal. bien sûr. beneen aspect bi ci des seex. jakalo yow ni dara bañu ñu rax dafa neex parce que da ngay da ngay da ngay am esprit waxtan parce que xam nga lamb ji dafa bari tay ku ci nek dafa bari ay bête noire. xam nga lolou ci lamb modlo mm-hmm. kan la dan kan mo dan modlo bala ko Gaye ko daan mu dan Eumeu sen Balla kan la dan kan mo dan Balla Gaye. Balla Gaye moo daan Modou Modou daan Eumeu Sène. kan Tafatin Tafatin kan la daan kan moo daan Tafatin. Tafatin Tafatin. moo daan Eumeu Sène de. Bombardier. daan Balla Gaye daan waaw. boobu nan nga leen mën a jàng ci ci ci waa cadre bête noire. kenn mënul kenn de. waa léegi nag yow Tafatin nga dem wane say preuve yu extraordinaire ci làmb ak niveau bi nga toll ci làmb yow nga tourné waat di may Balla Gaye revanche est-ce que ci ko daanee day gën a sori waa bi quoi. léegi jóge ci ci ci ci ci Boy Niang xoola Balla Gaye keroog bi mu daanoo mm-hmm. ñaata temps def ci géew bi. na. mu jóge fa àndaat ay mbokkam. am lu ko metti lool mu toog dem ci ruqam. te Tapha Tine moo daan. waaw léegi mi ngi noonu kon tey su làmb dee doxaat tey ba ni Balla Gaye Tapha Tine ak sa Tapha Tine taxaw na est-ce dina gëme loolu. Balla Gaye dina ko caaxaan. kan moo na ci risque. am na ñu ne sax per performance yi Modou Lo def nii moom day bëgg day bëgg. waa léegi looloo tax man la kan moo nekk ci risque combat boobu. dafa amone ci risque. wa kon mi ngi noonu. la dafa am fu ko teg. Mhm. néew Balla daan neewuma ma moy daan mais dama la waxal norme yi li logique ak li deug la la wax. Mhm. mais ni di wax ni ga comme Modou performance yi mu def moo tax Balla Gaye xaptalu bëgg mom tamit def li kay def parce que ñom ñaar ay concurrence. wala c'est normal c'est normal. parce que xamul tax kan moo njëkkee roi des arènes. Balla Gaye kan moo roi des arènes. Modou Lo. waa léegi tey tey tey boo xoolee tey boo jë boo jëlee carrière ru Balla Gaye moment bi ñu toll nga jël carrière ru nga méngaloo leen kan ngay jox kan ngay jox pourcentage bu bari. Modou Lo kon mi ngi noonu. kon Balla Gaye loolu il faut mu rattrapé ko. mu rattrapé ko. mais le fait moom mu daan ko ñaari yoon loolu du ci déggoo li ma la wax nee naa la làmb ji wax naa la ko léegi da nga wala da nga bëgg ñëwaat ñu génnaat fi ñu duggoon ci bête noire yi parce que xam nga ni tey Balla Gaye dafa daan Tapha Tine ba pat ñu bëri combat bu yàgg nag te metti ñu ñëwaat arène mu daan ko deux ngi noonu mm-hmm. ñu war a defaat troisième fois yàlla rek moo xam mais Tapha Tine bu bokk ci bête noire yi Balla jëm kon ak boo xoolee deux ans et trois ans et quatre ans échelon bi Tapha am ci làmb ak li mu fi def li mu liggéey. ak li mu liggéey. Uh-huh. xam nga loolu lépp tey boo ko doon xool tey nga mën koo méngale di ko xaylaw. Tapha Tine toogoon tey bàyyi saison bi li des ci saison bi rëcc ko parce que am na ci sens ba bëri ci combat daan kon tey tey boo amoon benn benn patience bu ndaw rek loolu mu doon yóoti bu làmb bu tëjee tey bu ubbiwaatee mën na koo téye ci loxoom su boobaa mais ñi wax ñemewul ñemewul Balla ga yo loolu gis da nga gis loolu wala. wa loolu nit ñu man nañ ko wax parce que xamul tax seen face à face bi ñu mujjé def nii dafa dem def tam comportement bo xam si daf ko ci wone te mënoon na ci ñak nak kon ku su ku sukkandiku fofu tay ni na fa ragal Balla Gaye man dama ko dama koy deugal dama na loolu deug la parce que bu la wul wala bu signature contrat bi amul ñu man loolu duma ci duma ci focus mais nak dama gis Balla Gaye tax taxaw ci kanamu Tapha Tine am sañ-sañ ñeme li muy wax ragalu ci daw ci saala yaayam te Tapha Tine jëlu ci benn responsabilité tamit kon tey bu nee Tapha Tine dafa ragal dafa ragal Balla Gaye moom mën naa ko gëm hmm. waaw loolu moo ci samay preuve quoi